nañ ko boole te mënuñu ko xar seddoo ni ñuy def mooy ñu rafetal ko rek ba tax na kon euh, daanaka bu ñu tolloo ci yu mel ni euh, ay xew-xew ay actualité am faw rek euh, suñu kàddu jóg foofu waaye itam ñuy sàkku képp koo xamante ni itam donte waxtu wi xat na mu ngi dégg suñu kàddu fu ñuy tàmbalee rek mu dugg ci kanam incha allah ci numéro bi dañ ko joxe léegi waaye dañu bëgg a wax li ñu xam ne ni moom la ñuy waxtaanee rek cëslaay li te mooy li xew te mooy lu ñuy wax xibaar Euh, parce que xibaar dafa nekk loo xamante ni euh, dafa yàgg mook àdduna moo ànd euh, te itam suñu borom bi subhaanahu wa taala bi mu bindee doomu adama it waxuma la doomu aadama sax mais def na ko ci njanaaw sax def na ko ci njanaaw mooy xabaar ku du ñuy fàttaliku ko yàlla Suleymaan alayhi salaam lu mel ni hudhud loolu ku ne xam na ni xew-xew la boo xamante ne ni amoon na ci yonent yàlla Suleymaan kon mu mel ni hudhud moomu ñanaaw euh, la woon di benn picc waaye jëloon na euh, li nga xam ne mooy xabaar euh, jàllale ko ci Seydina Suleymaan alayhi salaam kon mu mel ni loolu jëm yàlla da koo jël def ko ci ki nga xam li nga xam ne mooy njanaaw waaye doomu aadama nag ñu gën miin fii ci kaw suuf mu di ko utiliser kon war na koy préparer bu baax a baax waaye di ko war a seet bu baax a baax xam li muy wax ndax wax dafa nekk loo xamante ne ni su jibee rek dafay daal di fés te bu fésee rek euh, ñaare wax bi fés te am solo boobu la ñuy soxla waaye wax ji nga xam ne bu fésee dafay indi fitna te suñu boroom euh, mu ngi ñu ci àddu toujours wa taqu ta kooku euh, suñu borom subhaanahu wa taala moo ci àddu na ngeen ragal fitna ndax fitna du yem ci bopp borom laatu zali laatu si ne ladina zalamu minkum xaasa kon dafay am solo lool ki nga xamante ni mooy taskatu xibaar mu mu di koy segg bu baax a baax Euh, di seet itam di am ay conseil euh, ba euh, li nga xamante ni moom la war a yëkkati mu yëkkati loo xam ne lu am solo la luy jariñ askan wi yëpp la waaye du yëkkati loo xamante ni luy lore la parce que am na xibaar yoo xam ne boo ko toxalee mën naa am mën na yet fitna te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na al fitnatu naimatun laana allahu man ay xazaha fitna day nelaw yàlla rëbb na ko ko yee te xibaar Euh, nekkul loo xam ne dafa war a yee fitna ndax mooy lan baatu xabaar xibaar bu ñu ko seetee mooy cosaan mi muy xabar xabar euh, maanaam euh, loo xam ne da ko war a jàllale wala ñu ñu wax a naba naba waaw loolu dafay nekk loo xamante ne nii lu am cëslaay la lu yàgg la te doomu aadama ji di ko def kon dafa daf ko war a sàmm sàmm wanteeg moom ndax bu ñuy yër ci alquran suñu borom nee na xawluhu taala na auzu billahi mina sheytaani rajim in jaakum faasixun bi naba'in fatabayyanu waaw ah, kon eh, bu leen ab faasix ñëwelee ab xibaar na ngeen ko leerlu xam kon kon mi ngi wax ne kon xibaar buy ñëw rek war naa doon xibaar boo xam ne buy defar la mais warul nekk xibaar boo xam ne dafa yàq kon dana am solo lool doomu aadama eh, rawatina taskatu xibaar bi muy bàyyi xel lool bu baax a baax a baax eh, ndax xibaar bu xasee ba jàll rek comme ni ma ko waxoon léegi daal nay jàll kon loolu tam dinañ ci euh, bàyyiloo xel ñi nga xamante ni nii ñooy wax ndax comme euh, suñu émission bi leeral la te itam ñu ne li ñuy wax dañ koy sukkandiku ci euh, borom bi subhaanahu wa li nga xam ne moom la ñuy wax waaye itam li nga xamante itam xel nangu na ko loolu tam dañ koy waxaale waaw li xel xelum doomu aadama di nangu tam dañ koy dañ dañ ciy taxaw seetlu bu baax a baax ndax bu fekkee doomu aadama ji yàlla daf ko jëmmal ci kaw suuf mu nekk fi am xel moo xam ne dafay xalaat kon war na li muy xalaat ak li muy jàllale mu doon loo xam ne lu rafet la waaw kon bu ko defee loolu ñu ci bàyyiloo xel suñu mbokk Sénégalais yi ndax comme ni ma ko waxee rek réew mi ñoo ko bokk te itam lépp loo xamante ni dafay indi fitna baaxul waaw bu ko defee euh, ñuy euh, yaatalante di muñlante euh, te bañ a yàkkamti yàkkamti baaxul ndax yonent bi alayhi salaam wasalaam mi ngi ñuy wax ba tey ci hadis ni ataani min allahi wala ajalatu min asheytaan teey dafa jóge ci yàlla waaye yàkkamti moom ci seytaane la bàyyi ko kon yàkkamti mu ngi mel ni euh, lu mel ni comme li ñu toll tey ndax xam ngeen ni ci weer yi jàll rek lañu ñu fal ay euh, euh, njiitu réew waaw fal ñi nga xamante ni ñoom la àndal seen équipe ñu ànd wala àndal liggéey kon dana am solo lool doomu aadama ji am waaxi mooy gis-gis am xalaat mu bàyyi xel ni kii day nañ xool li mu wax fekk ay weer wala at euh, mbaxam moom mi ngi toog ci yoon déet defe naa ñun euh, sénégalais yi ñu ëpp ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fal njiitum réew loolu lañ ko fale mooy fal ko pour mu soppi waaw ñoom itam bi ñuy jël réew mi loolu la ñu wax dañ dañuy ñëw pour ñu soppi kon dana am solo lool ñu bàyyi leen xel ci seen soppi googu ndax euh, li ñuy soppi du yombut a soppi ndax comme ni ma lay wax loo xam ne nii jamono yi ñun ñun ñii di wax ak yéen eh, fii nii ñoo ngi ci 50 ans yu tegal wala yu ci cinquante ans ah, boobu ba léegi eh, xaj na réew mi mi ngi dox waaye nag na mu war a doxee doxee wuñu ndax eh, comme ni ñu ko waxee rek ñun ñu ci bëri tey ñu ngi dëkkoon ci dëkk yi nga xamante ni mooy dugg àll yi muy xuraa yi nekk ay ndaw waaye wér ni mooy suñu njiiti réew yooyu jamono yooyu li nga xamante ni moo war ci ñun defuñu ko woon waaw wax dëgg yàlla. Eh, ba suñu parents yi ñoo doon góorgóorlu rek di eh, ñu dugal ci ay école rawatina ndeysaan eh, rahmatullahi alayhi Cheikh Mouhamadunil Mourtada moom ak Cheikh sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma lawlaahum ak ñeneen ñeneen boo demee ci wàllu yeneen kër yi diine yi am na fa ñeneen ñoo xam ne ñoo mel noonu ñoo jël ndaw ñi tàggal leen ba def ci seen xel yi macha allah alquran ak yenn ci diine. ba tax na ñu man di jàllale ay message doomu aadama yëpp man cee jariñu ndax comme ni Euh, journal doon ni sax euh, doomu aadama comme ni nga ko waxee euh, suñu suñu jamono ji moo xam rek da nga ciy tàggatoo yooyu mais suñu borom subhaanahu wa taala boo jëlee alquran yàlla nee na maa farat naa fi kitaab min sayin bàyyi wuñ ci alquran alquran dara alquran lépp ngi ci. alxuraan journal a ngi ci médecine ngi ci dama laa wax ne la léegi sax yàlla def jël na ab yonente def ci moom xibaar ci ab ab picc kon doomu aadama bu amee xel dëgg yël alxuraan war naa man di jàllale lu am solo loo xam ne nii dañ koy kii kon nekkul ni rek journaliste bi français lay jàng wala moom lay gëstu euh, moom moo war moo nekk journaliste déedéet déedéet euh, képp koo xamee ne sa xel sell na ngay ngacc di wax dëgg parce que euh, xibaar taskatu xibaar mooy waxkatu dëgg rek loolu la doon waaye nekkut koo xam ne saa bu wàccee foofu rek nekkatu journaliste kon dafay doon leneen waaw ah, dafay doon leneen dafay doon comme ni koy waxee rambaaj waaw te yoon bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yadxulul jannatu an maam rambaaj du dugg na waaw rambaaj na mooy ko xam ne lii mu mu yëkkati bu ko yëkkatee mën naa jur musiba mën naa jaxase ñeneen kon ku kooku du tudd journaliste rambaaj lay firi journaliste mooy ki nga xam ne dafay wax dëgg fu mu toll mooy ki nga xam ne saa buy joxe xibaar daf koy wax ni mu dikkee du ca yokk du ca wàññi kon defe naa loolu mooy mooy xibaar mooy dëgg rek waaw as sidqu huwa euh, al bila eh, bil xaqiqa bila siyaadatin wala wala nuqsaan mooy koo xam ne dafay joxe eh, eh, information boo xam ne du ca yokk du ca wàññi ni mu dikkee noonu la koy dikkee waaye bu fekkee ni dafay jàll nag indi loo xam ne dafay jaxase bu boobaa wax dëgg yàlla doonatul nekk journaliste day daal di doon rambaaj comme ni ma ko waxee ci léegi rek comme yàkkamti jaru ko ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi ni ma la koy waxe ay ndaw lañ waaw dañu tollook jamono ji comme fii instant bi euh, ñu ñoo xam ne ñëw nañ ñu ñu loo xam ne nii lii nee nañu euh, réew mi dañ ko bëgg a jubbal jubbanti ko te ñun loolu la ñuy sàkku dañoo bëgg maanaam jubal jubanti te booy jubal di jubanti nag euh, bu ci taqaaf law mata laa imin maanaam bu ci ragal ŋàññikat bi yee ñaañ parce que ŋàññikat bi mooy ki la toppoon di la ŋàññ ba léegi moo la topp di la ŋàññ waaye bul dox bul geesu kenn jëfal waaw comme ni ko maam Baye Jaxate di waxee rek bul geesu kenn jëfal waaw ndax euh, euh, loolu du mën a ñàkk maanaam faaw rek ñi nga xamante ni ñoo nekk ci yéen te euh, nekk pour du ñu gis seen dara lu baax ñooñu duñ leen mën a dox parce que boobu ba léegi ci loolu lañu nekk kon ñu ne ci loolu bu leen kenn geesu waaye ñi nga xam ne dañoo jël président fal ko war nañoo xam ànd ak dal teeylu bu baax déglu ñuy wax la tax ñuy wax ndax wax ji ñuy wax Euh, wax juy defar la wala wax ju yàq la parce que yaakaar naa ne euh, euh, gouvernement bu demagut ba amagul ñetti weer wala ñeent leneen lu ciy dugg luy labaji loolu am xeetum yàq lay doon kon war nañoo am waaye bu baax a baax muy xalaat déglu ñi nga xamante ni dañoo fal ñu xam li li tax ñu fal li tax ñu fal mooy soppi soppi googu nag mooy réew mi metti na trop am na ay euh, laxas-laxas yu ci ne yu bari yoo xam ne nii war nañ koo jubbante bu baax a baax lépp lu lu ñuy jubbanti nag dañ koy jaar par ndànk par ndànk di ko jubbanti waaye du jon loo xamante ne nii dañuy tëb rek def ko waaw maanaam euh, lu ñuy lu ñuy wàññi du tëb rek dañ koy wàññi dafa am yoon yoo xam ne dañ fay jaar ba wàññi ko waaw comme pour par exemple lu mel ni dund gi ñuy wax nii dund gi euh, nekkul ni da ngay tëb tëb rek wàññi dund waaw parce que boo fekkee dund ñu koy jëlee feneen Euh, foofee ñu koy jëlee wàññiwuñu ko kon du mën a wàññeeku waaye boo ñëwee nag andi sa yeneen stratégie yoo xam ne réew mi euh, laaj na ko nga di ko doxal comme ni ñu koy waxee teg réew mi lépp a ngi fi suuf a ngi fi euh, ay fu nangu mbay a ngi fi ndox a ngi fi loolu war nañ koo mën a jëfandikoo ngir man cee am ay njariñ bu baax a baax ñooñu ñu def lool ñi nga xam ne dañoo jóg nag pour def lool dañ leen a war a mën a ànd ak daal teeru leen bu baax a baax waaye maanaam bu ñu leen di opposé woon mën nañoo leen a opposé ci wàllum maanaam di leen soññi waaw di leen soññ waaye duñ tëb rek nit ñoo fi waxoon li eh, nañ ko def rapidement léegi léegi léegi loolu man wax dëgg yàlla ñu koy def ñu koy wax ànduma ak ñoom waaw eh, itam eh, li am na loo xam ne itam dama ci ànd mooy lan ñëw nañu pour réew mi ñi fi nekkoon li li fi newoon xaj na am na lu ci dox waaye nag dëgg dëgg dëgg am na yu ci bari yu ci sooxe waaye pour nag ñu jubbanti ko jubal ko loolu dafay am solo lool loolu man ànd naa ci waaw mais nag dañuy jaar ci yoon wi waaw jaar ci yoon yi mooy euh, jubal jubante bu baax a baax a baax euh, te itam foofu nga xamante ni foofu la ñu nekk bu ñu ko sensé mukk parce que sénégalais yi leen fal loolu lañ soxla maanaam dañoo soxla ñu jubbanti leen bu baax a baax a baax euh, bu ko defee loolu moo doon tey suñu thème bi nga xamante ni dinañ ci dugg ndax réew mi fii ne coow li noonu la demee ñu ngi woo journaliste yi ñu ngi dem ñenn ci ñoom ñu ngi dem di wujji yoon ñi nga xam ne ñii itam néewuñu fi yoon mu ngi leen di xaar ak yeneen ak yeneen loolu yëpp nag comme ay sénégalais lañ euh, ñi nga xamante ni euh, ay journaliste lañ di dégg suñu kàddu képp koo xamante ni da ngaa war a wax war nga wax loo xam ne luy defar la mais waroo wax lu yàq waaw parce que comme dañoo demagut fenn àggaguñu fenn tey Sénégal comme ni ma la ko waxee mag ñi dañ cee def ay ñaan bu baax a baax a baax te fitna euh, du yem ci bopp borom waaye nag ci borom lay gën a tare ci borom lay gën a tare kon nañu leen bàyyi xel loolu bu baax a baax ni Sénégal réew la moo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye laajut ñuy euh, tong wante ak ak euh, xasante parce que euh, wax ju ñaaw olof toujours day wax ni fo mu jógee foofaay cosaanam kon li nga xam ne nii da koy yëkkati di ko teg der di ko teg ci sa moroomu jullit waxuma la ku nekk jiit ci lenn sax waaye sa moroom bi nga xam ne maanaam dafa nekk nit koo xam ne comme ni ñu koy waxee rek doomu aadama boo xam ne xaj na ñu ko dara waaw maanaam nit la rek koo xam ne euh, dafa nekk sa nattangoo euh, waroo yëkkati kàddu sax di ko teg waruma waxuma laa koo xam ne nag suñu borom moo dogal ñu jox ay ndombay tànk muy muy kilifa ci réew mi kon dana am solo lool ñu bàyyi xel ci loolu bu baax ba wala critiquer mënut a ñàkk mais bu ñu koy critiquer ñu jaar ko ci wàllum de waaye nag bu ñu tëb rek euh, daa di def sox mooy tudd wax loo xamante ni lu doy waar la maanaam ci moom waaw di ko sikkal ci jëmmi boppam waaw waaye bu fekkee ne da wax kaadaru nag jëm li ngeen li bokk muy Sénégal euh, ni muy defee ni muy doxale boo ci amut euh, euh, gis-gis nga wute ci moom sañ nga ko wax waaye amaana ngay tudd ci jëmmam ak yu mel noonu loolu benn sénégalais moo ko wërta def moromam waaw waxuma la sénégalais sax mais jullit benn jullit ci kaw suuf waru koo def moromam mais benn doomu aadama sax waru koo def moroomam waa di ko ñaawal parce que loolu mooy lan mooy ngay teg sa moroom euh, sa moroomu de euh, diw euh, ah, loo xam ne ni ñaa lu ñaaw la parce que benn bindkatu arawaykatu araam mu ngi naan naibu samaanina wa mal aybu siwaana wa laysa sebu yakulu laxma sebin wa nakulu baaduna baadan ahyaana mu ne ñun ñooy ayibal jamono ji waaye ayib bi yëpp ci ñun la ne ndax nee na ab till bu moroomam dee du ko lekk da koy romb dem waaye ñun doomu aadama yi ñooy lekkante mooy lekkante mooy lan ñooy waxante wax wax ju ñaaw ñooy ŋàññante ñooy jëwante eh, même du ñu ah, yam ci jëw sax mais dañu koy fésal nekk ci réseau sociaux yi di di di di yàq nit loo xam ne lu doy waar la loolu dafa nekk loo xam ne lu ñaaw a ñaaw la de itam nekkut euh, maanaam euh, taaru Sénégal ma ngi dañ daan wax taaru Sénégal mais loolu taaralul Sénégal daf koy gàkkal daf koy ñaawal kon euh, ñu bàyyi xel loolu ci bu baax a baax a baax bàyyi xel ni daal sunu Sénégal gi Eh, dañu ñaan suñu borom subhaanahu wa fii ñu toll ñu dem ci ay at ci kanam ñu gis fi changement boo xam ne macha allah eh, ndaw ñi yëpp dañuy bég waxuma la ndaw ñi mais mag ñi yëpp dañuy bég ci Sénégal ngir lan ngir eh, ñu wommat ko jëmale ko foo xam ne ñi fi ñi jàll macha allah gàcce ngalaama am na lu ñu fi def jàmbaar lañ waaye nag ñii fi nekk gën cee bay seen waar doxal ko loolu nag ñu ni koy defee wala nu ñu leen di bàyyi ñu doxale ko noonu mooy ñu ànd ak ñoom gunge leen waaye di leen euh, jàppale ngir ñu mën a jëm foofu ñu jëm loolu mooy li nga xamante ne mooy li am solo waaye bu ñu toppee ci seen ay tànk di gor loolu dafay doy waar ngir lan yàkkamti pouvoir ngir euh, bëgg a jot ci li ñuy jot ak yu mel noonu yooyu yëpp dafay doon loo xam ne doy lu doy waar la waaw ndax euh, comme ni ñu koy waxee Sénégal mënuñu maanaam séparé wu waaw ñun ñëpp benn lañ waaw kon dafay nu mu mën a doon rek yàgg-yàgg ñëpp dañuy ànd kon ànd gi e, dafay war a teel rafet waaw bu ko defee ñun ñëpp ñu àndandoo doxal Sénégal mu jëm kanam mais ñii di e, gas ñii di suul pënd bay bari rek comme ni ko olof yi waxee toujours maanaam bu ñii di gas ñii di suul pënd day bari rek maaye am am am am kan du am te itam kon e, kan boobu bu amul liñ ko bëgg a jëfandikoo duñ ko jëfandikoo Sénégal comme ni ñu ko waxee toujours dañuy wax gaal la ku ci ne dafay joow kon joow gi manko de ci baax lool lool lool lool waaye yàlla dogal na. Euh, ay régime ay nguur ñoo fi nekkoon jóge nañ fi kon ñii fi ne nañ leen jàppale ñaana leen suñu borom euh, defal leen tawféex euh, ba li nga xam ne moom la ñu yéene Sénégal ñu def ko waaye itam ñu di leen bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ni moom lañ digg nag buñ ko defoon nag bu boobaa sañ nañ bu ëllëgee ñu war leen ni ah yéen kat li ngeen fi waxoon defu leen ko bu ko defee la leen faloon moo leen di folli rek waaw leen faloon moo leen di folli loolu ñu bàyyi ci xel bu ñu xamee ne ku ci nekk la fal boo bu fekkee ne lañ la fale yaa ngi koy def euh, ñu bàyyi la fa nga continuer euh, da nga ci jubal waaye bu fekkee ni xam nga ne liñ la fale defoo ko bu boobaa loolu dafay doon loo xamante ni euh, dafay kiimaane lool kon mbokk yi foofu la ñu taxaw kii tey ci ci thème boobu la doon wax tey muy lu aju ci réew mi ñu ngi siyaare waa mbakk yëpp Euh, ku ñuy déglu wala à travers Sénégal yëpp ndax euh, ñi bàyyi xel rajo bi bari na lool fii ba côté Mbour jëm yooyu yëpp dañ koy euh, dañ ci bàyyi xel kon ñoo ngi nuyu région Diourbel même région Thiès ñëpp ñoo ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax waaye même région Louga bàyyum fen Daara Jolof ñëpp ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax waaye di siyaare nag mbokk yi nga xamante ni ñoo ne ci dëkk bi yëpp di leen wax ne émission bi moom nii la dañuy am euh, soxla toujours euh, ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci euh, lu seen xam-xam màcc rek ñu dalal leen ndax comme ni ma ko waxee réew mi ñoo ko bokk te itam ñi warut a wax bu ñu dee wax ñi war a wax dañoo war di wax donte li ñuy wax ab aaya lay doon comme ni ko yonent bi salaa salaam waxee balliqu ani walaw aaya na ngeen di jottale ci man donte aaya la te réew mi dañuy wax quatre-vingt-quinze pour cent ñëpp ay jullit lañ kon eh, dana am solo lool ñi nga xam ne nii eh, nit nit ñi gëstu ci diine lañ war nañu man di leeral nit ñi bu baax a baax waaw mais du jaage ni rek seen xam dafa màcc ci wàllu eh, nasaraan ñoom rek ñoo war a wax déedéet képp koo xam ne ni sa xam-xam màcc na lu baax la nga war koo mën a message jottali ko dafay nekk loo xam ne lu am solo nga jàllale ko kon lii moo tax ñu jël émission bi def ko ngir maanaam ñu mën cee jariñ bu baax a baax di wax mbokk yi nag képp koo xamante ni mën naa dugg euh, yokk ñu mën naa woote ci vingt 88 628 a 19 05 88 628 19 05 waaye itam bu ko neexee mën naa woote ci a 88 628 81 08 loolu mooy bu mu jokk gaa gi ñuy siyaare ñëpp bu baax a baax a baax euh, di wax ne Sénégal mu ngi noonu daal waaw dina am solo lool daal euh, ñu bàyyi xel ci ni réew mi jàmm rek la soxla waaw waaye soxlawut ay waaw parce que ay du yem ci bopp borom comme ni ñu ko waxe kon dana am solo lool nit ñi euh, ñu sàmm wanteeg euh, euh, li nga xamante ni moom la ñu yàlla andee ci kaw suuf parce que lim nu ci andee ci kaw suuf mooy lan ñu bennoo waaw am na benn mag moo xam ne ba mu fi bàyyi ko dafa jëloon ay ay ay doomam war leen a mën a dénk mu jël benn doomam daal di eh, eh, mu jël eh, lu mat mbooloo ci ay doomam daal di jël benn takk ba ay bant lu mel ni ay xeej daal di koy takk ba mu dëgër bi mu ko takkee mu jox kenn ku ne leen dammal damm leen ku ne jël mun koo damm waaw kenn mënut a damm mu jël loolu euh, daal di koy tasaat def ko jox benn kenn ku ne benn bi mu jëlee kenn ku ne jox benn nu muy def da daal di dañ koo daal di damm ci mu yomb lool lool lool loolu mun leen nag dénk naa leen loolu man maa ngi leen di bàyyi xool ne ànd leen waaw saa bu ngeen bennoo rek euh, saay-saay du leen mën a mën a mën a lor wante bu ngeen eh, féewaloo nag say saay saay dikkee leen waaw kon loolu itam réew mi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax ni am na réew yoo xam ne ñu eh, am na nit ñoo xam ne ñu ngi ca biti Sénégal rek la ñuy bàyyi xel lu ñu bëgg mooy Sénégal eh, mel neneen kon loolu li koy jur wax dëgg yàlla doomu aadama bu nekk la sa la la yàlla séddee nga di ko taxawee fii ci kaw suuf moo xam jàngale la moo xam tas xabaar la moo xam lu mu mën a doon war nga cee mën a góor góorgóorlu baax ba euh, def ci loo xam ne bu ëllëgee suñu borom subhanahu wa taala dala ci jox ay ndam ndax métier la yoo xam ne lu ci ne boo ko defee ba rafetal ko bu ëllëgee macha allah euh, yàlla daf la ci euh, mën na la cee may àjjana sax ndax bu dee jàngalekat nga ñi ngay jàngal lu luñ ci jariñu rek yàlla fay la ci bu dee taskatu xabaar nga itam xabaar bi ngay tas doomu aadama yi ci jariñu ak euh, def yokkute gi muy yokk doomu aadama yi waaw mel na ni am na ku ne ci ligne bi soxna si asalaamaaleykum asalaamaaleykum daa mel ni dégguma kii am waaw waaw kooku de ah kooku daa mel ni dégguma de ah allo oui waaw Oustaz Makhtar waaw ñu ngi lay siyaar baax ci am ci am waaw ndax nu ko saalika naka coono yi waaw ñu ngi sant baax oustaz waaw oustaz ñoo ngi rafetlu waxtaan wi macha allah macha allah ginnaaw bi nu jiitale sunu nuyoo aha di nuyu borom kër gi waaw ah, waaw sëñ Moudou Diop Thiam waaw koo xamante ne nii mi ngi liggéey ci biir kër gi waaw waaw waaw ñoo ngi am yéene waaxu ba kenn ku ne ñu fekk la fa nga nekk ñu jox la ñaari loxo siyaara la waaw ah, kay jërëjëf Thiam oustaz di rafetlu émission leeral bi wax dëgg yàlla ni muy doxee am na solo lool waaw rajo bi moom na xam ne moom maanaam ñu ñëpp nga koy déglu. dëgg la dëgg la. waaw oustaz damaa dégg nag ci tàmbali bi nga wax euh, tomb bu am solo. waaw waaw yëpp am solo sax waaye. bi ma waaw maa ngi dégg waaw waaw. bi ma ci gën a marqué daal. bokk na ci muy wàllu xibaar yooyu. dëgg la dëgg la. waaw ndax xibaar moom. lu am solo la tey lu fi yàgg la. lu fi yàgg la. waaye nag loolu nga wax da ciy da ciy am solo di di ko bàyyi xel muy fexe ba xibaar yi di tegu ci dëgg. waaw di tegu ci dëgg waaw waaw. waaw loolu moom am na solo lool ndax fi na boo demee ci alxuraan. da ngay eh, bi tabaaraka wa taala di wax ay wax ci sóoratu naba yi. naba yi waaw waaw. waaw xam nga sóoratu naba yi. naba yi ay xibaar lay teg xibaar la waaw waaw Oustaz Abdou am na yatasaa'aluuna. waaw waaw waaw ani nabaa'il aziim. waaw waaw waaw. allati hum fiihi muxtalifuuna waaw waaw waaw kallaa a ya'lamuuna summa kallaa sa ya'lamuuna ilaa aaxirihi waaw waaw waaw dëgg la nga xamante ni yawmal xiyaamatul akbar la suñ borom bi joxe ay xibaaram foofu di ko di ko nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg la dëgg la dëgg la kon xibaar lu am solo la waaye nag ba muy dénk ñi nga xam ne ñoo ko waaw waaw ñu ngi jégalu de ñu ngi jégalu ku benn daa mel ni dafa dog waaye am na solo lool Euh, ci kooku di al oustaz Mokhtar Thiam di mudir euh, madrasa Masalikul Jinaan wala mahad Masalikul Jinaan fële ci euh, Touba Kawsara Fall ñu ngi siyaare kilifa yi fu nekk bu baax a baax Euh, sëñ Sidi Ndiaye ñu ngi koy siyaare bu baax a baax waaye sëriñ Fallou Fall xalifa ñu ngi koy siyaare ni ki noonu sëñ Jili ñu ngi lay ñu ngi koy siyaare euh, di siyaare itam euh, mboolem ñi nga xamante ni ñoo fa nekk waaye di siyaare mbooleem ñu nekk ci daara ji monsieur Guèye ñoo ngi koy siyaare waaye Seyda ñu ngi leen di siyaare yëpp bu baax a baax ba ñu kenn ni ki noonu oustaz Mor Ndiaye ñu ngi siyaare ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara jooju nga xam ne mooy Masaalikul Jinaan nekk foofu ci Kawsara oustaz dafa liggéey liggéey bu am solo ñu ñaan suñu borom barkeel ko waaye itam ñu ngi eh, bàyyiloo xel mbokk yi rek ni eh, émission bi moom noonu la xibaar daal eh, dañ ko war a rafetal waaye même bu dee chronique itam dañ ko war a rafetal waaye chronique boo xam ne da ngaa singali nit rek loolu nit ñi sax dañuy dem ba xam ne yow kii da bañ kii loolu ci dem dafay am léeg ngay déglu ñoo xam ne ni ñuy waxee yow mi amug waa yow mi amug dégg da ngay xam ne kii ñi ki ñuy waxal dañ koo bañ te doomu aadama wërta bañ moromam waaw ba tax lu jóg rek mu mu mu teg ko ko ndax doomu aadama dafa ñuul dafa lëndëm comme ni ñu ko waxee toujours te doomu aadama yàlla moo ko sàkk am nu mu ko mooñe kon ni mu mel rek yow da ngay xool ci sa bopp rek waaw waaw boo xoolee sa bopp rek euh, keneen dina la doy misaal waaw kon euh, wa isa aradta an taskur uyuba xayrika faskur uyuba nafsika soo namee tudd uyubi ayib bi keneen tuddal sa ayib bopp ndax ku ne sa ayib yi nga yor doy na la sa da nga koo nëbb nag noonu nga koy nëbbee nag noonu nga koy nëbbale personnel comme yow waaw waaye bu fekkee comme ni ma ko waxee léegi ci ginnaaw rek li ngeen bokk nag moom yéen a ko bokk waaw muy réew mi ni ñu koy doxalee sa nga ci aw waaye nag aybu moom la wasurul ayba mastataata li sumtin noonu la Serigne Touba wax moom la ñu jàngal ca euh, ju kon rawatina képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi war nga euh, jël euh, naxju boobu nga nga nga traduire ko bu fekkee ne chroniqueur nga boo xam ne français ngay ngay def ci français nga jànge war nga jël naxju ba tax boo jëlee sam moroom di ko wax leneen dafay doon loo xam ne lu doy waar la te itam jamono ji moo demee noonu maanaam liberté bi ba tax na léeg-léeg nit sax Eh, da ngay tudd nit di ko di ko di ko di wax wax di ko saaga waaw di wax man day day def safaan waag di ko wax na mu dikkee waaw loolu léeg-léeg dañuy déglu ay chroniqueur fii ñuy ñuy wax lu noonu di tudd nit ba pare di di di di di wax lu ñaaw loolu itam dafay doon loo xam ne lu doy la te itam eh, ñooñu bu ñu bàyyi xel ni am na ñu ngi leen di déglu waaye ñi leen di déglu am na ñooñ leen di dégloo pour ñoom ñi ñi ay juumkat lañ parce que ñaare fu ñu fu ñu leen dégloo rek eh, ay nit ñe fa bu ñu leen tuddee rek ñu ni ah ñooñu day daanaka eh, ku leen di déglu da ngay da nga leen di déglu pour ni ñii eh, daanaka eh, keñaan la ñuy wane rek waaw te loolu dafay am solo maanaam ñu bàyyi ci xel ñi nga xam ne ñooy def loolu ñu bàyyi ci xel xam ne du ñu tëb rek sëngali nit waaw di wax ci moom mais dañoo war a déplacé wu dem ci keneen waaw waaye daanaka toujours seen émission singili rek euh, loolu du xam-xam sax waaw maanaam bu ñu defee ne ay cadre lañ déedéet ñoom ñu suufee lañ ci euh, askan wi parce que askan wi duñ leen euh, dinañ mën nañ leen a déglu mais dañu leen di déglu pour corriger leen te itam balañ kon a xam ku mel noonu di def émission woo ci ay nit waaw muy doon émission boo xam ne ay dal wala nga ubbi ligne bi bu boobaa da nga xam ne ab émission noonu nag boo koy def doo ubbi ligne bi eh, te doo ci eh, faale law matal laa imin bu boobaa mel na ni émission boobu ngay def eh, daanaka amul njëriñ daal waaw amul njëriñ parce que dafay am solo lool émission nit ñi di ko bàyyi xel bu baax a baax di ci dugg di ci joxe seen xalaat waaye ab émission bu jógee pour xasteeg ak ñu di ñu ubbi ligne boobu émission Sénégal yi war nañ ci bàyyi xel war rawatina nag diwaan bi ñu koy defee. waaw parce que am na ci ay rajo yooyu dañu leen di déglu waaye bu ñu leen di déglu li ëpp ci li ñuy wax euh, daanaka boo leen seetloo euh, ci kenn rek la ñuy nekk duñ ci jógee duñu ci jóge ba ñuy bàyyi boobaal nag lay loolu dafay ñi am waax ñam taxaw seetlu dañuy gis ñii kat euh, daanaka li ñuy def dañoo singali rek waaw te singali baaxul nit du singali comme ni ma ko waxee rek toujours doomu aadama yàlla daf koo mooñe muy ay mu am aybu waaw ku ne nag sa ayib da nga ko war di bàyyi xel bu baax a baax mais doom doom ci ayib boo xam ne ni ayibu keneen la kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax di eh, wax ni rek képp koo xam ne eh, bëgg naa dugg mu def ni directeur oustaz eh, Thiam Makhtar mu woote ci 88 628 19 05 ngir man ñoo yokk ndax loolu dañ ci am solo lool lool parce que bu ñuy wax itam li ñuy wax yàlla rek mooy tax ni ko wax waaye du waxuñu ngir maanaam ñun dañoo far ñun faruñu fenn ñun ki ñu faral Sénégal laa faral man waaw man mii wax ni Sénégal mooy ki ma li ma ñor waaw te itam comme ni ma ko waxee euh, léegi ñu xaw xaw xaw cee fendi ci réew mi xaw a seet lu bëri euh, fekk euh, jamono yi président Sédar Senghor xañ na xamuñ ci lu bëri mais ñu ngi fàttaliku jamono yi gejj yaak yu mel noonu jamono yi suukar yu jaune yooyu loolu ñu ngi koy fàttaliku bi mu ko daan joxe jamono yi nag yi yooyu bi mu koy joxe yooyu yëpp ñoo ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax mu mel ni loolu euh, fekke nañ jamono waaye booba dafa fekk ñun nekk ay tout tànk waaye nag euh, bi ñu demee ba léqaliku màgg am na lu des nag mooy lan xañ na loolu mënutoon a ñàkk waaye nag euh, wàllum nag dugg ci dëkk yi parce que ab dëkk bu fekkee ne dafa doon dëkk boo xam ne war naa mat ay 70 buntu kër nga xam ne dëkk bu mag la foofu ni nga xamante ni noonu nga leen di forte ci leneen ñu fay lemp wala ñu def leen noonu nga leen di forte ñu jàngal seen i ndaw waaw parce que euh, jàng dafay loo xam ne lu am solo la waaw waaye boo seetee nii rek euh, ab ab arrondissement wala euh, ab ab canton foofa rek la ñu war a dugal français bu foofu la bu boobaa loolu moo bokkoon bokk na ci laj yi nga xam ne lajj nañ ko waaw ndax waroon nañu dugal ci dëkk yu bari ay ay ay ay ay ay école ay jàngukaay comme ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Mouhamadou Nil daa doon defee. sëñ euh, Cheikh Mbacke Gaynde ma doon ko def waaye sëñ euh, boo demee Tiwaawan noonu lañ ko doon defee ku mel ni euh, borom daara ji dëkk yooyu yëpp région des Cafés yooyu yëpp dafa daan wër ay ay école di ko fa def waaye ni ki noonu ñi yor wàllu nguur gi noonu la ñu waroon a jël école yooyu dugal ko foofu donte ñoom xam nañ parce que boobu ñoo ñoo ñoo yilife te bu ñu la yilifee euh, war nañoo mën a ñëw def daara donte sax da nga ciy am dengi dengi ndax bu njëkk mag ñi doon nañ ko xaw a am gis-gis ndax euh, jubluwuñu ko woon waaye loolu yëpp ñàkk euh, ak gis-gis la woon rek waaw parce que bu ñu bàyyi woon xel ni toujours rek loolu di nasaraan làng la boo xam ne tëbu rek ñëw dafa ñëw bàyyi ko ci yàlla bu boobaa waaye nag jamono yooyu xel yi moo demul noonu waaw waaye ñi nga xam ne yàlla moo mayoon na leen ak jàng nag pour ñuy déglu dafay am solo lool euh, ñu noot leen ci loolu mooy jël xale yi def ci ñoom am jàng waaw bu ko defee euh, dëkk bu ne dana développé ay cadre nañ fay génne waaye nag dañuy sant yàlla bu baax a baax di sant Cheikh Mouhamadou Nil Mourtada waaye di sant sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma di ñaan yàlla eh, yokk seen leer bu baax a baax ndax ñoom wax di yàlla def eh, liggéey nañ ci kaw suuf liggéey bu rëy boo xamante ni eh, am na solo la ndax defal nañu ay ndaw ñoo xam ne ay jàmbaar lañ ay cadre lañ wax dëgg yàlla ku leen bàyyi xel ay message la ñuy jàlle yoo xam ne lu am solo la kon loolu tam dañ ci am solo lool Euh, semaine bi jàll yi itam gis nañ ci ni màggalu daaru salaam gi macha allah am na solo lool ñu ñaan euh, yàlla yóbbu yóbbuwaat nu ci euh, waaye at mu ñëw rek ñu gën ci am ay jàngat ñu gën ci am jàngat ndax ren màggal gi ala daw me na ndax am nañ ci ay jàngat yu baree baree bare yoo xam ne nii génération bi ndaw ñi ñëw nii am nañ ci ay jàng bu baax a baax niki noonu sëñ Mouhamadou Lo ngaabu màggalam gi mu doon def déglu nañu ay message am moom itam vrai sénégalais la wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal fanam gudd li mu war a wax wax lépp lépp wax na ko maanaam euh, doon ab sëriñ to euh, da ciy dolli nag nekk sénégalais waaw nekk sénégalais mooy li la war ci réew mi euh, nga di jàllale ay message parce que kilifa diine yi ñooy ay mufti ñooy ñooy war a doon mufti yi mooy ñi nga xam ne ñoo war a ubbi nit ñi di leen jàllale ay message yu am solo moom nag macha allah bokk na ci ñooñu waaye itam am na suñuy sëñ Moustapha Messere moom itam macha allah ku ku ñu ngi rafetlu bu baax a baax kazalika sëñ Mouhamadou Araf ay Mbacke moom itam euh, macha allah ñu ngi rafetlu euh, ni moom sénégalais la macha allah euh, parce que kazalika Mamor Murtada moom itam ñu ngi koy déglu ay message am bu baax a baax a baax ni muy jàlle moom itam fa waajuram wa nekkoon Cheikh Mouhamadou Murtada muy tàggat ndaw ñi def na ko bu baax a baax a baax loolu nag réew mi daf ko soxla bu baax a baax fii ne nii moo tax ndaw ñooñu itam euh, dañ leen di encouragé bu baax a baax di leen xamal ne Sénégal bu ëllëgee yéen a koy mujjee waaw te itam euh, suñu borom dénk nañu président yoo xam ne euh, yàlla def na bokk nañ yar nañ yaru nañ ci ki paaru alquran waaw loolu nag bu mu fi jógati waaw bu ñu jëlati maanaam ñi nga xamante ni ay tubaab lañu waaw tubaab sax am na ci yoo xam ne bu ñu nee tubaab dañuy xaw a kii waaye. Euh, ñi nga xam ne dañu euh, yore jikko yoo xam ne ni daal euh, jikko yi recessive la waaw yooyu ndax tubaab am na ci ñoo xam ne nii ñu baax lañ waaw tubaab yi baax nañ kon nag jikko ñi nga xam ne daal dañoo yor jikko yoo xamante ni dañ ko bëgg a def ci askan wi te amul amul solo réew mi loolu nañ ci bàyyi xel ñooñu moom nañu gaare fale bu ñu leen falate moom daal ku ñuy falate na na dégg diine na dégg ñaari ñaar yëpp waaw loolu moom ñu ngi koy lancé sanes bi yëpp ñu bàyyi ci xel bu baax baax ni réew mi daal dafa soxla ay cadre yoo xam ne euh, tey euh, président boo xam ne boo ko yóbboo ci euh, jumaa ji mu jiite julli jumaa boo ko yóbboo ci jàkk ji mu julli waaye loo ko defloo ci diine rek mu def ko loolu itam war na fee mën a am ndax cadre yaa ngi fi macha allah ñoo xam ne li ñu war a jàng lépp jàng nañ waaw ñii ñu ngi nekk ay docteur tey ñii ñu ngi nekk ay ñu ngi ci université yi ci àdduna bi te fi fi lañ jaare dañoo jaar ci daara yi nga xamante ni moom lañ leen wax léegi mooy daara yi nga xamante ni suñu mag ñooñu ñoo ko fi defoon muy développement boo xam ne eh, umma islaam da ciy gis eh, boppam waaye itam waxuma la umma islam waaye société bi yëpp da gis boppam ndax eh, réew mi loolu moo fi ne diine moo fi ne bu dee diine yi jullit yi lislaam ñu ngi ci bu dee diine yi catholique ñoom itam la leen war ñu nga ca ñu ngi topp seen i diine bu baax a baax di ko def def ni ni mu waree waaw kon ku ci nekk dafa am cër ci réew mi daal war nga ko mën a doxal doxalin woo xam ne bu baax la euh, mbokk yi ñu ngi leen di bàyyiloo xel rek euh, ne jotaay bi euh, xañ na xam naa fii ne boo demee waxtu wi li ci des bariwut ndax dañoo retard 30 minutes bu ko defee ñu leen di wax ni képp koo xam ne bëgg naa jote dugg ci jotaay bi rek mën naa woote ci 88 628 19 05 88 628 19 05 waaye kat mu mel ni mu mel ni kii may woo damaa nekk ci dama nekk ci rajo bi man naam damaa nekk ci rajo euh, maa ngi jégalu dama nekk ci kii négal bu ma pare nga ooma waaw bu ko defee ñu jégalu bu baax a baax euh, ki nga xam ne mooy woote nii euh, mooy ñu jégalu bu ko defee comme ni ñu koy waxee rek réew mangoog ñoo ko bokk waaw kon daal dafay am solo lool ñu pencoo ko bokk yëkkatee doo dóorandoo ndax dafay doon loo xam ne lu am solo la waaye bu euh, nu féewaloo rek dafay daal di ñaaw lool te suñu ñoon dañ ñuy ree kon euh, comme ni ma ko waxee sànq rek euh, réew mi daal ndaw ñi ñoo ci ëpp waaw ndaw ñi ñoo fi ëpp ndaw ñi nag nañu xool xam bu baax fi ñuy teg seen tànk waaw xam ñi leen di dugal ak ñi leen ñi nga xam ne dañ leen di jugal jurloo ay mbugal loolu baaxul kon li nga xam ne daf lay daf lay jural mbugal bu ñu ci dugg mukk mukk mukk te itam comme ni mu ko waxee rek ci ndorteli eh, réew mi eh, ci loxoy kilifa la tegu daa am dañoo jël ñoo xam ne moom ñoo ko yilif kon ñoo ñu ko yilif dañ leen respecté jox leen cër ndax yàlla moo leen jox cër waaw waxtu kulla si xàqin xàqa maanaam eh, na nga jox borom àq bu ne àqam loolu ñu naan jox naa la sa wàccuwaay loolu mooy la nit ku ne nanga ko jox wàccuwaayam waaw bu ko defee day am solo lool waaye boo ko bëggee di maanaam dal ci kawam di ko euh, tiñal bu boobaa loo bu ëllëgee lu la cay dal nag ah doy na waar waaw parce que nag yaakaar naa ne nekkuñu ay euh, taux yoo xam ne nit ñi dañuy euh, nekk di wax lu leen neex ñu leen ci bàyyi déedéet mais bu ñu waxee tam ni la fi newoon lañ fi bëgg andi fayantikook yooyu déedéet du fayantiko maanaam nañu nañu am waaye ñoom it bu baax a baax dégg ni li ñuy def ñi leen fal waxuñu ni fayant fayantikoo la xañ na ñi nga xamante ni ñoo leen di opposé ñooy wax lool mais du fayantiku ki Euh, bu defut la euh, bu defee la mu warut a def nañ ko teg ci yoon ak fu mën a nekk nag waaw ak fu mën a nekk waaw parce que euh, réew mi dañ ko seppa dañ ko xaajale ay région ay ay ay ay département ay ay commune ak lu ne fu ci nekk kilifaa nga fa kon nañuy bàyyi xel rajo yi nit ñi di ci wax lu lu am solo lu jariñ nit ñi waaye nit ñi duñ fi nekk di ŋàññante képp ku xamante ni dafay dégg koo xam ne dafa nekk ci rajo di ŋàññ dañ laa war a woo waaw yóbbu la ci yoon waaw parce que bu loolu amee kenn dootu dal ci kaw kenn te tooñ dafa baaxul tooñ mooy ngay jël euh, vie privée nit ki di ko ŋàññi waaw loolu baaxul loolu ku ko def euh, euh, waxuma la ku jiitewul dara waaye ku ko def doomu aadama am bi nga xam ne nii amut benn ndomba tànk wala dafa nekk ci nekk su situwaay rek ni koy waxee lambda dafay doon loo xam ne du yoon nga di ko jalgati waxuma laa ne ki nga xam ne yàlla du ko dégg ay pouvoir kon ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax euh, kon mbokk yi euh, euh, numéro téléphone bi mooy cinq 88 628 19 05 88 628 19 05 ñu siyaare bu baax a baax mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy déglu fu ñu mën a toll xañ na wootewuñu waaye ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax émission bi rawatina seen émission bi di leeral nga xam ne émission la boo xam ne ah, dañ fiy soxla ñëpp waaw dañ fiy soxla sax même journaliste bi nga xam ne dafay def euh, euh, tas xabaar soxla nañ ko fi même chroniqueur bi nga xam ne dafay def chroniqueur soxla nañ ko fi pour mu ñëw leeral parce que euh, luy jariñ askan wi rek moom la moom moo moo ñu fi teg loo xam ne buñ ci buñ ko defee Sénégal jëm kanam te Sénégal jëm kanam rek la ñuy bëgg waaye Sénégal tasaaroo moom wala iyaasu bilaay loolu moom bëgguñu ko te itam mooy kañ mooy lan mooy nga yee fitna. waaw mooy yee fitna nag mënut a paase euh, wax loo xam ne dafay jur ñu lay ñuy dar gémmeñ waaw di la woo wala yenn ñu demee noonu kon réseaux sociaux yi euh, nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax euh, bari na lool lool waaw jumtuwaay yi bari na lool am na ñoo xam ne dañoo ubbi seen jumtuwaay ngir lan ngir defar waaye am na ñoo dañoo ubbi seen jumtuwaay ngir yàq de dañuy ñaan nag suñu borom subhaanahu wa taala mu aaral ñu Sénégal képp koo xame ni dangaa ñëw pour yàq Sénégal euh, sa ay wowu yàlla na yem ci yow wala bu la dal sax waaye na na na ubbi sa gémmiñ maanaam na ub sa gémmiñ euh, ba loolu doo ko mën a def day doon loo xam ne lu am solo mu mel ni soxna si mi ngi may wax euh, waxtu wi jot na wante noonu daal moo doon sumu yéene pour ñu jàllale message boobu Euh, waaye di bàyyiloo xel ñi nga xamante ni ñuy déglu ni képp koo xam ne daal bëgg na nga ju dalal ñu mën naa woote ci numéro bi bu wootee ci numéro euh, service commercial wala mu woote ci sama numéro muy 388 91 77 dinaa ko dalal incha allah euh, jombut it incha allah mbokk yi nga xam ne ñoo ne ci kër di ay chroniqueur ay journaliste jomb benn yoon dinaa leen dalal insha allah wante tey moom noonu la ñu dikke woon waaye itam di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu may ñu xel mu sell waaye musal ñu ci accident làmmeñ ba du ñu wax loo xam ne nii luy euh, gàllankoor kenn la parce que ñun jubluwuñ ci loolu ñun dañoo jublu rek Sénégal kuloo euh, euh, liñ ci bëgg muy mu soppeeku jëm kanam tapale gi ak wuruj yeeg yenn yi Euh, suuf yi ñuy jaxaseeg li fi li fi ne daal kenn mënu ko wax al isaara tak fii li man àqalal rek du day doy ko am xel waaye li fi ne bari na lool loo xam ne nii lu ñu war a defaraat la ñii nga xam ne ñoom la fi yàlla teg nag ñu bëgg koo defar yàlla na leen yàlla may wér musal leen ci seytaane ba ñu mën koo defar ni mu wéree bu ko defee ñi leen falit ñu bëñ leen a yàkkamti bu baax man de yàkkamtuwuma leen parce que maa ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax waaye di leen wax ne nag euh, réew maa Eh, liñ ci soxla daal muy coppeeku bu baax a baax a baax ba sénégalais bu ne gis ci boppam eh, wa axiru daxawaana an alhamdulilah kon ñu ngi sant suñu technicien bu baax a baax sëñ mu Jóob Caar waaye soxna si nga xam ne moom laa jàkkaar lool eh, maa ngi koy gërëm bu baax a baax di soxna Olimata Jóob macha allah Olima yar bi mate na ko macha allah ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal la tawféex kon foofu laay yem ak yéen rek ba ajjuma ji ñëw Eh, di itam eh, eh, bàyyiloo xel ni incha allah jomul ñu am gan dalal ko ci yeneen asalaamaaleykum wa bi bàyyi xel na ne am na imam boo xam ne xam naa Cees la ne jombul ci semaine bi dinaa man jokkook moom bu ko defee ñu jël ko en téléphone bu ko defee mu dugg donte dañuy am ganit moom itam mu bokk ci biir rek incha allah di imam Sadio Ba dëkk fële ci cees xam naa bu buñ ko dugalee ay ku askan wi ñor la moom itam umma bi soxal na ko lool nekk imam foofu ci euh, jumaa sëñ Abdoulaye Yaqin Diop ci cees kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wa axiru daxwaan an alhamdulilah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu